الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا له اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله seen mbokk imam Abdou Aziz Ndiaye bu jàkk Sacré-Cœur 3 VDN moo del si tey lundi 8 mars 2021 di waxtaan ak yéen mu nekk sunu audio numéro 206 ci sunu jotaay bi passé àndoon nañ gis naka la yaay di donno nu annoncé woon ne tey dinañ fas yéene ak ndimbalu borom bi allah subhanahu wa taala waxtaanee mbirum maam bu góor ñu waxoon ca njëlbéen ne miraas suñu waxee maam bu góor nañ jàpp ne nañ xam ne maam bu góor bi jur sa papa la grand-père paternel maam bu góor bi jur sa papa ndaxte maam bu góor bi jur sa yaay moom bokkul kon miraas fu ñu jegee maam bu góor rek nañ comprendre ne maam bu góor bi jur sa papa la ñu tàmbali comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ak mbirum dàq ñu tàmbali ak dàq yi maam bu góor loolu xam nañ ko déjà maam bu góor bàyyi daf koy dàq maam bu góor bàyyi daf koy dàq yow mi génn àddina sa maam bu góor du mun a yegg ci du mun a yegg ci ci sa ndono lu mooy day fekk ne xanaa ah, bàyyiwoo fi sa papa ñu pour ñu mën a tudd sa maam bu góor ci sa ndono yow mi génn àddina day fekk ne yow bàyyiwuloo papa ci sa ginnaaw day fekk ne kon papa teewul kon maam bu góor sa papa daf koy daf koy dàq soo fi bàyyiwul papa nag mu nekk fii su boobaa moom dafay toog moom ci wàll boppam nag maam bu góor moom ci wàllu boppam dafay dàq bu baax nag sax day dàq ñu bari maam bu góor dafay dàq baayam moom maanaam sa maamaat bi ko jur sa maam bu góor dafay dàq xam naa nag loolu dina xaw a raar nga génn àddina bàyyiwoo fi papa waaye nga bàyyi fi sa ñaari maam yu góor sa maam bu góor bi jur sa papa ak papa moom maanaam sa maamaat ñooñ nga fi bàyyi sa maam ak sa maamaat bàyyi woo fi sa bàyyi su ko defee nag sa maam moom lay dàq sa maamaat sa maam bu góor ba léegi dafay dàq yeneen doomam yi dafay dàq yeneen doomam yi yi nga xam ne kon say freeru pàppa yi sa maam bu góor dafay dàq yeneen doomam yépp maanaam day dàq sa freeru papa yi ñi nga xam ne papa lañ ci yow yow mi génn àdduna say baay tëx sa maam bu góor daf leen di dàq sa maam bu góor ba léegi yow ba léegi itamit yow mi génn àddina sa maam bu góor dafay dàq sa frère ak sa sœur yi nga xam ne ñoom ndey nga bokk ak ñoom sa frère ak sa sœur yi nga xam ne ndey dong nga bokk ak ñoom say frère ak say sa maam bu góor bi jur sa papa daf leen di daf leen di dàq gis nga mbokk yi kon gagnant encore une fois dafay ñëw écarté men yow mi génn àddina sa maam bi góor bu jur sa baay dafay dàq say frère ak say sœur yépp yi nga xam ne ndey doom ngeen bokk munul dàq nag ñi nga bokkal ndey ak baay ak ñi nga bokkal baay hmm? sa frère yi nga bokk ak sa sœur yi nga bokkal ndey ak baay ak ñi nga bokkal baay ñooñu sa maam bu góor mënu leen dàq attention mënu leen dàq mais mun na dàq seen ay doom ñoom si nga bu góor dey mënul dàq say frère ak yi nga xam ne ndey ak baay ngeen bokk wala baay waaye seen ay doom ñoom daf leen di dàq kon mbokk yi gis ne maam bu góor comme ni ma koy tooñee rek ma ne maam góor dafa bari histoire hmm, dafa bari histoire gis nañ ne wax dëgg yàlla euh, su fi su fi bàyyi nekkul ba mu war a toog gis nañ ne ñi muy écarté bari nañ lool léegi nag mbokk yi maam góor naka lay jëlee wàllam ci miraas ñetti situation moo mun a am situation bu njëkk bi première situation su nekkee ne moom kenn dafa wéet su nekkee moom kenn rek a fi nekk dafa wéet ki yow mi génn àddina bàyyi woo fi kenn kenn kenn lu may sa maam sa mel nu bu góor donc nga fi bàyyi mu wéet su boobaa moom dafay jël alal yëpp bu góor asaba la maanaam bu bëggul asabala su boobaa dafay jël alal ji yëpp yëpp yëpp moo ko jël ndaxte amul keneen koo xam ne ku mun a donn toog nag moom moom dong nga fi bàyyi deuxième situation su nekkee nag ne moom danga ko fi bàyyi moom sa maam bu góor boobu ak ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoom dañuy donn ñeneen ñoo xam ne mënul leen écarter ñoom dañuy donn su boobaa moom dafay jël paaram dafay jël paaram ñu fàtt ñu fàttali rek ne maam bu góor moom boroom cër la maam bu góor réservataire la maam bu góor réservataire dafa am paar bu ko bu ko allah subhanahu wa taala ci boppam jagleel muy ñaata muy un sixième sudus kon mooy deuxième situation bi sa mam bu góor su nekkee ne dafa nekk ak ñeneen ñoo xam ne ñoom dañuy donn su boobaa moom fee jël paaram bi nga xam ne moom la ko borom bi jagleel paaram mooy un sixième muy suddus mooy juróom-benneel bi kon ñu fàttali li loo xam ne rek waxoon nañ ko waxoon nañ ko ca ginnaaw ne mam bu góor moom à gis nañ ne à la maanaam mën na jeexal alal asabala en même temps maam bu dafa am cër dafa am cër ba pare nekk asaba en même temps dafa am cër ba pare mun a jeexal alal en même temps loolu waxoon nañ ne moom ak baay rek ñoo am martaba boobu baay ak maam bu góor donc ñoo am martaba boobu ñoo nekk à la fois réservataire seen part ay boroom cër lañ un sixième wante itamit mu malgré tout mun nañ jeexal mun nañ jeexal alal kon deuxième situation bi ma baamtu ko maam bu góor su nekkee ak yeneen ñoo xam ne dañuy donn ñoo xam ne mun leen a dàq su boobaa moom dafay jël dafay jël euh, cëram euh, mooy un sixième troisième situation su nekkee ne sa maam bu góor nag dafa dafa nekk ak ay ay say frère yow mi génn àdduna da fi bàyyi sa maam bu góor ak say frère amaan na sax ak ñeneen ñoo xam ne mën nañoo doon ñu fàttali rek ni say frère frère yi nga bokkal ndey ak wala yi nga bokkal ñoom ay asaba c'est-à-dire mën nañ jeexal sa alal mën nañ jeexal alal su borom cëri jëree jëlee seen wàll ba mu des ñoom li ci des yëpp dañ koy jël waaye maam bu góor su nekkee ci situation boo xam ne ci benn miraas moo xam ne dafa nekk ak ay yoo xam ne nañoo alal maam bu góor am na loo xam ne moom rek moo ko am muy lan mooy am na droit tànn maam bu maam bu góor am na droit tànn dañ ko ne su la neexee nga jël sa cër sa part un sixième bi nga xam ne mooy sa cër yaa ko moom su la neexee tamit ah nga seddook frère yi nga xam ne ñoom dañuy jeexal alal ji asaba yooyu nga xam ne dañu jeexal alal am nga droit teg sa cër ne bañ jël sa cër ni damay séddoog ñoom kooku maam moo am possibilité bi maam bu góor dong moo am possibilité bi jël cëram un sixième wala mu bàyyi ko dem séddoo ak frère ya nga xam ne ñoom lañuy jeexal alal ja bu gën a bu ëpp bu gën am avantage ci moom rek mu jël ko waa ci calcul day feeñ ne day feeñ ne su nekkee ne frère yi benn lañ benn frère la wala ñaari frère foofu maam bu góor bi avantage am mooy mu dem séddoo ak moom su nekkee benn frère la wala ak ñoom su nekkee ne ñaari frère lañ dafay bàyyi un sixième bi ne ma damay dem séddoo ji yem ak ñoom waaye su nekkee ne frère yi dañ ñett jëm kaw foofu moom avantage bi pour maam bi mooy mu garder un parce que su nekkee ne ñett jëm kaw su ñoom am un sixième bi donc mom su nekkee ne frère yi mën nañ ñett jëm ko rek na leen bàyyi ñoom ñu jël seen seen alal garde un sixième am waaye su nekkee ne frère la bu a asaba war jël li des ci alal ji wala ñaar frère maximum daf ne damay dem ci ñoom possibilité kon maam rek dañuy tànnaloo ci miraas mu garde cëram un sixième wala mu dem séddoo ji mbokk yi kon mbirum maamu ngóog maam bu góor mu nekk kaa rich riche maam bu góor kaam dafa riche lool ñemewu ma wax ñemewu wax compliqué nag dañ wax rek riche lool suñ fi dajewaatee nag ñu dem ci maam bu jigéen maam bu jigéen suñ koy waxee ci miraas ñaar ñaar ñëpp la maam bu jigéen bi jur baay ak maam bu jigéen bi jur yaay ñaar ñëpp la moom kon yàlla ñu ci yàlla yóbbu ak jàmm subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahuma salli ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim